moom Clédor Sène daal ne jëme ci coow li nga xam ni jamono guñ toll moo daal lëmbee réew mi la waaye lëmbee bu baax ci li xam ne moo di langue politique bi la ci kële di Ousmane Sonko war a daal di jóge fi nga xam ni moo di pouvoir exécutif daal dem fi nga xam ni moo di pouvoir législatif foofee nga xam ni moo di assemblée nationale nekk pencum ndaw réew ñi la ba tax na moom Clédor Sène daal indi ay kaddu indi ay leeral yi nga xam ni moom daal ne xam ne ne d'accordul benn yoon ci Ousmane Sonko mu jóge fi nga xam ni moo di pouvoir exécutif da daa dem pouvoir législatif bi la ca loolee daa xam xamle mën nañ ne pouvoir législatif amul benn solo amul benn li nga xam ni daanaka mën nañ dem seetloo président groupe sax moo ko daat ëpp solo ca loolee dañ daal di déglu kàddu yi nga xam ni moom la Clédor daal di yëkkati daal di ñëwaat euh, président Ousmane Sonko euh, président de Pastef cent ans euh, président de l'Assemblée nationale c'est pas pertinent le président de l'Assemblée nationale c'est la deuxième personnalité de l'État parce que assemblée mooy deuxième institution mooy suppléer en cas de vacance du pouvoir le président de la République donc euh, mais loolu c'est honorifique c'est c'est du prestige mais rôle président assemblée nationale li ñu ci gën a gis daal mooy présider les sessions plénières euh, toutes les sessions de l'Assemblée nationale ordinaire extraordinaire di def la police de de la session maanaam di joxe parole di retirer parole di rétablir l'ordre et cetera et cetera Clédor kàddu yu la daal di yëkkati ginnaaw bi ñi di Pastef les patriotes daal di amee ndam ci li nga xam ni moo di ngoonu 17 nove 17 novembre 2024 ci élection législative anticipée yi nga xam dimanche passé li ginnaaw bi tendance nga xam ni gis nañ ko bu baax a baax ba lenn ci leader yi daal di commencé di félicité bu baax a baax njiitul Pastef les patriotes bi la di Ousmane Sonko ñu njort ni bu baax kon jamono guñ toll nii Pastef les patriotes nañ am ñaari pouvoir yi la muy actuellement jamono guñ toll nii askanu Sénégal ñenn ci ñi nga xam ni ay chroniqueur lañ ak ñi nga xam ni dañuy analyser jëmee ci wàllu politique ñoom dañ daal di gis ni pour mun nañ ne daal di am vision deux mille cinquante bi mu daal di nekk li nga xam luy gën a dëgër la ci jamono guñ toll ni kii la di Ousmane Sonko dafay jógee ci exécutif daal dem pouvoir législatif loolee dina nekk mbir mi nga xam ni lu daal di am solo la ci mim réew di Sénégal waaye dina am solo bu baax a baax ci entre président Bassirou Diomaye Diakhar fay ba jàpp ki nga xam ni moo di premier ministre bi la di Ousmane jamono guñ toll nii ginnaaw be loolu Clédor daal di xam le deuxième personnalité de l' état mën nañ ne kenn weet di wul foofee nga xam moo di assemblée de di président bu assemblée waaye tamit deuxième institution ci biir réew du Sénégal kenn weddiwul ni mooy assemblée waaye daanaka solos bi nga xam ni la askanu Sénégal bëgg daal di jël jox ki nga xam ni moo di président Ousmane Sonko ngir kat mu dem foofee ci assemblée nationale boobu la solos amu ko benn yoon ndax kat rôle président assemblée nationale nekk li nga xam ni moom du leen lu dul daal di yëkkati li jëm ci wàllum session ak li nga xam ni moo di session ordinaire ak session or extraordinaire waaye tamit ci loolu nekk na ki nga xam ni mooy réglé lépp lu jëm ci wàllum police police de bu session waaye tamit ci loole nekk na mën nañ ne groupe groupe ki nga xam moo di groupe président groupe parlementaire sax moo ko daal di ëpp solo wala président commission ba tax na mu daal xam le moom ni nga xam ne nag moo di pouvoir législatif bi jamono guñ toll nii Ousmane Sonko na xool ki nga xam ne ginnaaw ba mu moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ndax moo ko joxoñ askanu Sénégal ñi faroo biir réew biti réew waaye tamit na xool bu baax ci kawam ki nga xam ne wóolu na ko ngir mu dem foofee ca assemblée nationale daal di fay teewal parti bi di Pastef les patriotes moo gën a ñaay gën a baax foofu ko daanaka moom Ousmane Sonko muy jóge ci exécutif exécutif naan day dem fi nga xam ni moo di législative ndax kat loolee nekk na acte bi nga xam ni daanaka li mu mën a jur ëllëg dina daal di doy waar sax moom mu daal di xam le jamono guñ toll nii ginnaaw ay xam ni gis nañu état bu Sénégal bu yees bi commencé na kaa def lu ci mel ni pôle judiciaire ak yi nga xam ni daanaka ku xool Sénégal gi di muy doxee xam ni justice bi daanaka commencé naa tëddee ñaaxanaay kon nag amul li nga xam ni Ousmane Sonko war na ko uti ci fi nga xam ni moo di pouvoir législatif bi la mu nekk ay actes xam ni moom Clédor Sène daal di xam le jamono guñ toll kenn ku nekk nag ci mim réew di Sénégal dinañ la nangul sa analyse dinañ la nangul sa taxawaay ndax kat réew wax waaye nag moom gisul benn yoon ki la di Ousmane Sonko mu daa dem foofee xam moo di Assemblée nationale ndax kat mu nekk moo ëpp doole foofu ci yaakaar te gis-gis yi nga xam ne moo di Assemblée président Assemblée donte moo fi mooy nekk li nga xam ni jamono guñ toll nii kenn werantewul mooy deuxième institution te mun nañ ne président assemblée mooy nekk deuxième personnalité waaye nag dafa fekk ni président fi nga xam moo premier ministre tamit daal di am solo ci taxawaay bi nga xam ne Ousmane Sonko war ko amee taxaw jege ki nga xam ne président de la république lu ci mënta am am dinañu xool fii fan naka la président bu Pastef les patriotes di Ousmane Sonko nekk premier ministre du Sénégal daal di bu leen di fàttee abonné aimé partager commentaire like ndax